kàddu la koo xam ne man ak madame le maire Maimouna Dieng ñoo ko bokk ndax suñu borom dafa dogal 2014 ak léegi ñu bokk téye doo mairie Thiès ba saa ma liggéey ma see yóbbu bitim réew moom mooy téye dëkk bi kon suñu demee ba toll ci jamono bu ñuy tàmbalee teg suñu ay jéego ngir jotaat dëkk bi dafa jaadu woon mag moom ñu àndaat loolu dafa fekk tey jii dañoo jàpp ne à titre principal tête de ñooy jël kàddu te tête de liste ville du benn nit ñaari nit la tey na ñaari jëmm la waaye mooy firndeel benn gis-gis benn yéene benn pas-pas benn taxawaay ngir waa Thiès may nuyu kilifa diine yi dëkk bi yépp di ko jaarle ci ñi fi teewal di nuyu délégué de quartier yi di leen xamal ni biig la bàyyi Souleymane mujj jokkoo ak man may nuyu ñi nga xam ne ci dëkk bi ay kuréel lañu yu ñu jox cër ñuy yëngatu ci lépp lu mën a taaral dëkk bi naatal ko ñooña bëri na ci ñu leen teewal ci jataayu ñii féete ci wàllu diine ñii féete ci wàllu liggéey ñii féete ci wàllu aada ak caada ñii féete ci wàllu sport ñii féete ci wàllu bépp xeetu xarala boo xam ne mën na maye ñu am yaakaar ci liggéeyu ñoon ñu jële dëkk bi fenn jëlee ko fu gën yóbbu ko fu gën a baax waaye toujours ci turu communauté yi di nuyu suñu mbokku way laago yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk te ñoom ci seen bopp ñu jox leen cër ci biir liste bu baax a bi ñuy dugg ci mairie bi dañ leen a jox cër ci biir mairie bi ci liggéey nga xam ne xeetu laago boo am ci dëkk bi bu ne jël nañ ko muy liggéey ci mairie Thiès ba wane nañ ko man tey jii ci suba bi ma àndee ak waa FIFA ànd ak waa fédération sénégalaise de football euh, ñu dem stade Maniang Soumaré di xool liggéey ba ñu fa def nga xam ne cinquante ans nii ñu bëggoon stade bi am pelouse bu baax tey jii lañ doon constaté ni liggéey boobu sotti ñu ànd léegi tribune bu bees ba ñu fa def dañu fa njëkk gis ne dañu ko tërale ci anam boo xam ne ah tey jii kuy woy laago di nga mën a yéeg ci tribune bi te kenn du la jàppale loolu mooy accessibilité waaye lu ñu manti wax faw ñu bàyyi xel ne am nañu suñu xarit boo xam ne ma nga jógee ba États-Unis bokk ci ñi fa samp APR muy Abdoulaye Samb député Chicago nga xam ne bi ma président la république yabalee États-Unis ma fay def liggéey ma def fa trente cinq mille kilomètres ànd def quarante six états moom mii laa àndaloon waaye ñi ngi àndoon ak ak suñu sëriñ sëriñ Saliou Bousso mu ànd ak ñun doon jànkoonte ak ñun jafe nga xam ne xeetu dëkk bu nekk ànd nañu ca ngir seeti doomu aadama ya fa nekk waxtaan fa ak ñoom ci li nga xam ne bi ñu duggee ci mbas mi xëy na dal na leen fa kon bu fekkee ne ñoom dañoo ñëw tey ànd teew ci jataay bi du def lu dul gën a suñu xel ah kii nag di Daawur Mbuub moom itam ba ñu tàmbalee liggéey bi ba tey mi ko bokk ñun te ñépp xam nañu ne au niveau national dafa nekk responsable askanu rap alors lu tax ma insister ci loolu xëy na maa tudd askanu rap mais à travers askanu rap bépp askan bu fi nekk maa ngi la tudd ngir xamal la ne bu ñu nee waa Thiès Thiès yépp a ngi tey ñii nga xam ne ñoom lañu ñu àndal ñu toog tàmbali dara nga xam ne jataayu tey bi duggaguñu ci midi ndax élection bii nu jëm du loolu la laaj mais jataayu tey bi dafa laajoon ñu dajale ñi nga xam ne ñoo ne ci liste bi ndax du ñàkk am na ñu miinantewul ñu bokk jataay bu ko defee suñ fi jógee ñu boole ñi nga xam ne ñooy ànd ak soleil bi du jóge est waaye di ànd ak soleil bi di tëdd ouest waaye ñëpp xam nañu ne dañuy wax ne il ne faut jamais perdre le nom kon ñett ñooñu ñenn ñi ci nekk te bokk commune bu ñu nekk bu ñu jógee ci jataay bi ñoom danañu daje ca seen commune seet nan la ñuy ndar liggéey bi def ko ci anam ji gën a rafete te ak ni ñu ko oustaz Ibrahima Faye léegi bu ko defee ñooñu nga xam ne ñoo seq liggéey bi ah, kenn ku ci nekk bootu te ginnaaw tête de liste ya nga xam ne ñoom ñoo fa nekk nekk nag dans une parfaite solidarité ak une participation effective ba nit ñi mën a teg seen bët résultat yi xam ne. moom la ñuy yóbbu ko bëggee jëfe li ñu njëkkee mooy fexe ba xol yi nekk benn la amul feneen la ñuy fexe ba mu mat fii mooy suñu borom dogal na pour élection yii ne waa Thiès ñii ñu tànn ñuy nekk. tête de liste kon la ñuy yóotu yi la ñuy yóotu ñii ñooy ñii di jiital gox bu nekk ña fa nekk te ne fii ci saal bi nañu bootu ci ña fa nekk nit ñi dañoo jàpp ne politique xiiroo ak ñaayoo la nañu wone beneen visage mooy ne politique li ko tax a jóg dootul xiiroo ak ñaayoo li ko tax a jóg mooy xam yitte doomu aadama yi ba nit ñi xam nañu ne Thiès am nañu plan de développement de la ville boo xam ne ñi ko fësal le 5 ci teewaayu premier ministre Boun Abdallah Dionne ci auditorium mu keroog la ko yóbbante ci président Macky Sall ne ko neel président ni muy amee Thiès mooy bu ko Thiès amee ni ko Thiès di amee. mooy yitte yi ñu tudd mu dugal ci loxom te dugal na ci loxom nag ba may sàkku mu dugal ci loxom booba dama renoncé ci sama candidature à l'élection présidentielle de 2019 ba ma koy sàkku dama xam ne li waa Thiès doon xaar mooy ñu liggéey leen te mu jafe woon ndax ressources yi fi waroon a nekk foqati nañ leen jox leen communes yi ma xam ne suñ ko bëggee def faaw ñu lëkkaloo ak moom ngir nit ñi mën a gis njariñ ma def ko ngir yéen def ko ngir Cees dégg ci lu nekk nag dégg ci saaga dégg ci baat bu ne te xam ne billahi wallahi wa taalahi ñi ko doon wax maa leen gën ngir bi Sénégal ak cees di soxla di am jafe-jafe ba ma day yëngu kenn xamul fu ñu ne ba ci ki nga xam ne mooy seen patron di Idriss ba mu nekkee prison benn manifestation moo am ci Sénégal le 14 maa ko organise fii promenade de Thiès te booba ñi ma jàppe woon noonu man ni ma ko góor gi Isaaxa Kàtt daan waxee oo noon noonu xiif mooy noon rafle mooy noonu feebar mooy noonu saa yi ñu demee ba toll situation bu ñu war a taxawal dëgg dañ koo mas a taxawal loolaa waral ba mu nekkee ci jafe-jafe dama ko daan fekk prison ña ko daan nekk ay garde bu ma masaa di wax ak moom ñu jege damay làkkanteeg moom anglais kon nga xam ne amul benn moment boo xam ne sama wàllu bopp dinaa jóg di xeex doomu adama waaye nag su fekkee ne Thiès moom dafa nekkoon ci jafe-jafe waa Thiès jóg jëlal ko paar waa jóg waa Thiès jóg renoncer même à leur développement suspendre seen développement jóg wan ginnaaw état di ko jàppale combat bu mu jóg nekk ca waa taxaw bu ñu demee nag ba combat wu développement taxaw moom moo waroon njëkk a taxaw kon su ñu jógee li ñu njëkk def mooy jël marché central jox ko commune nord jël gare routière jox ko commune ouest jël marché Moussante jox ko commune est jël marché Grand Thiès jox ko commune ouest après fan la ville de Thiès di jëlee reset ba pare yenu nag war a yenu nag li ëpp solo ci dëkk bi joxuñu la koppar yoruloo koppar koppar yi nga waroon a yor nangu nañ ko wëlbatiku bàyyi la fi un milliard trois cent bor Idrissa Seck ak Diattara waaw parce que wax Diattara nag te doo ko wax ndax nag moo ko fi bàyyeendi woon ndax nag signature am la yore woon ndax nag ñoom ñoo war a lijjanti entre ñoom ñaar mais ñun suñuy laaj ñun waa moom la ñuy laaj kon bu fekkee ne gasal nañ la kàmb bu rëy te la nga waroon a mën a ñëwee jël ko ci marché pour suulee ko loolu nga ngir nga mën a liggéey loolu it ñu nangu ko mooy nee nañ la yow mi doo liggéey parce que boobu ñu ngi doon espérer di yaakaar ma démissionné mais man dama am kilifa man biñ ma falee le 24 juillet ñu teg ci ay fan le 28 juillet ma war a jëli service war a def passation dama xëy sëriñ Saliou Touré yàlla na fi yàgg tawee jox ma maag sëñ Assane Gallaga café ñu naan ba pare mu ne ma demal di fa yàgg ba lu ko fekk la kon du ma démissionné moo waral ma taxaw bi ma demee ba xam ne pour waa Thiès mën a am lu ñu bëgg dañuy lëkkaloo ak état bi ma def luñ ma ci wax ma encaissé te yabal yàgg rek ñu yabal yàgg rek ndax lu ñu dëgg du yàgg te lu yàgg dëgg ndax tontu du forox ñu dem ba novembre ñu dem ba novembre 2020 sama gaaña sama gaaña doon wax dañ leen a wor te ma ni leen woon wor amul waroo moo am ñu dem ba gis ne ndekete yoo la taala gisoon mooy dëgg ñu raam ndànk ñu raam ndànk dem fële ca pare ba sukk jébbul ci kanam Macky Sall waaw parce que nag ñoom fu seen intérêt taxawee fu seen intérêt taxawee ma ne fu seen intérêt taxawee ñu dem sukk jébbalu fa dañ daan demoon dañoo demoon sukk jébbalu Tiwaawan loolooy dëgg bi ñu nee ba seen intérêt taxaw ñu dem sukk jébbalu Touba bi ñu nee ba seen intérêt taxaw ñu dem sukk jébbalu ci loolooy dëgg ma ne ma dañoo ba seen intérêt nekkee ci ànd ak Moussa waa PUR daal avant PUR ñu daal leen jàppale maanaam Tivaouane lañ doon waatee loolooy dëgg Idrissa Seck Tivaouane la daan waatee bi mu demee ba intérêt mu jàpp ne dafa nekk ca Touba mu dem jébbalu ji Touba ba mu demee ba jàpp ne intérêt Macky Sall la ko yor mu dem jébbalu ca Macky Sall su amee waru leen a jaaxal ndax nag élection bi ñoom nañu xam ne ndegam ñoo jóg ne dañuy toraxal lu ñu dégg ak lu ñu gis xam ne ñoo ko liggéey 2005 yéen ñëpp xam ngeen ni ca Tivaouane Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum mi nga xam ne dafa xam na ni man mi taalibe Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul la ba muy taxaw di wax ne ah sama doom Talla Sylla mi ngi fi yëguma ko woon mu ni ah yi muy def ci man ñi ngi nii ci biir mimie bi ba léegi mu ni bindam dafa am solo ndax bindu ko am cofeel mu ni ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax xanaa gëj gise rek ak di laajte léeg-léeg ñu laaj ko ñu ni dafa voyagé waaye taala moom dama ko namm lool wax dëgg yàlla ba mu ca daaneelee lu mu ca mu ne ñoom nag kenn xamul fu mu ne damay laajte laajte ba ciy dirisa loolu tax ma nekk dégluwaat leen bànd bi mawlid 2005 mu ñu ba ci Idrissa ndax moom la am Ablaye daan yónni ci mag ngeen dégg bu baax li ma leen di wax ndax li ma leen di wax méngoo na moo indi jébbalu yooyu te du dëgg mu ne ñëw na fi négali daaw di ma laaj ci wàllu culture ak religion trois religions révélées nee na ma ko ci jox ay xalaat yu baax a baax mu ne waaye trois religions révélées daal daal di reetaan cey almaktub ku yabu ku yabu nangoo am kilifa te di ko déglu mu ni waaye trois religions révélées daal daal reetaan bu yàgg daal ne ku yabu daal di ci def ndànk ku yabu daal di ci def ndànk ndegam liggéey naaj waaye ku yabu daal di ci def ndànk loola daa am lu mu jur mooy li mu waxoon moom almaktum ne damaa mës a ñëw dem ci Serigne Babacar ne ko defal nga ma sa ci lu nekk tey damaa bëggoon nga defal ma ko ci politique nee na Serigne Babacar ne ma Cheikh teel na ma ne ko lu tax mu ne ma gis nga faxastalu diine mu ne ah mu ne ma astaxfirulaa moo koy faj waaye faxastalu politique astaxfirulaa faju ko liggéey bu rëy a koy ñàkk nag topp yoon wi. ak ñàkk a jiital li nga xam ne mooy njariñu doomu aadama yi moo waral tërëdi googu tërëdi googu ba bis di wut toroxal Macky fekk moo am étudiant bu génn àdduna ca saint mu dem feeti famille am ne da leen di defare lool miil ñooña am nu ñu taxawee mu war a génn wax ak presse bi ba mu xamee ne mënut a wax ca loola ca la dugg ca leneen lu ko dugal ci lu rëy moo waral te jamono boobu bindoon naa ci lu gàtt génne ma ko dama ko doon denc ko tey ndaamal kàccoor defati na bàkkaar ca pata ndax nee du màkka bàkka la pataar nag pataar nag ku fa ni patt pataaral patt woon la yoon kon ngeen comprendre bu baax waa ji jóg ne yéen waa Thiès vous n'avez pas je vais vous priver du droit de décider ndax da ngeen di reconduire seen maire wala déet kooka mooy kooku ne du màkk bàkkal kooka mooy ki toog ba mu yàgg ah wëlbati ku ne Tiwaawan la wëlbati ba mu yàgg non du Tiwaawan Touba wëlbati mu yàgg mu ne du Touba Macky Sall bu fekkee ne dañoo jóg ñu toog ci dëkk bi ci condition jafe pendant sept ñu toog di privé suñu njaboot samay doom li ñu ma gis ci juróom-ñaari at yi mën nañ ko wàññi sama waa kër li ñu ma gis ci juróom-ñaari at yi mën nañ ko wàññi ngir lan ngir waa Thiès ndax maa engagé wu nekk Baye mu leer leen ni fii ci dëkk bi li ñu fi jot a séddale ci ay terrain en attendant que président di signer li nga ne moo jëm ci forêt classée bi loola suñu meloon ne gars yi ko jaay ko lu am tolloog ñeenti milliards ak lu topp danañu ca ni ko ñeneen ñi daa defee ndax nag avant may ñëw waa ñoom Ibrahima ba réew mi vidéo yaa ngi fi wax nañ ne Jadara moo jaay suuf si ñeneen wax ko vidéo yi nekk loola dañ ko won ginnaaw jur bi may takk écharpe bi laa leen wax ne fii njublan jeex na fi wuruj jeex na fi sàcc jeex na fi saa yu ñu masee jóg bind këyit mu dem recette perception municipale lu fa génne ci yéen la jëm. ci njub nga ko tënk. bañ nañ ko ba bañ nañ ko ba bañ nañ ko ba bi mbas mi duggee bi mbas mi duggee Cees soxla tey ñi ne dañoo bëgg a nekk maire fu ñu nekkoon. ñi ne dañoo bëgg a nekk maire fan lañu nekkoon bi xale yi soxlaa bi daara yi soxlaa bi jigéen ñi soxlaa bi néew ñu doole yi soxlaa bi euh, dafa baax nit ñi xam une bon fois pour toutes comme da ngeen di dem waxtaan di jéeg nit ñi ci kër yi da ngeen war a xam li xew waaw ndax Serigne Cheikh wax na ko xam li xew moo gën bokk ci coow li lan moo xew li xew mooy dugal nañ Cees fukki kilomètre ak benn ak genn wàll ci tali Macky Sall moo ma ci jàppale Cees quartier yi nga xam ne dafa amoon problème mu assainissement ñëpp gis nañu liggéey bi te loola Macky Sall moo ma ci jàppale bu ngeen duggee ci dëkk bi di ngeen gis ne quartier yi nga xam ne électricité eggu fa woon poto yi samp nañ leen courant bi xëcc nañ ko te Macky Sall moo ma ci jàpp bu ngeen duggee ci dëkk bi di ngeen gis ne comme fii ñu koy defee fi mu gën a jege caali la mbedd principalu caali ñëpp xam nañ ne heure bi kenn mosu faa ñemee jaar léegi ba une heure du matin nit fay jaar économie bi dundaat na ndax samp nañu ci Thiès 2000 lampadaires solaires te Macky Sall moo ma ci jàpp waaw nga xam ne nga xam ne tey boo demee ci ñaar fukki quartier ak benn yu amoon problème ndox mu potable ñi nga fay def adduction d'eau ak branchement sociaux yoo xam ne tàmbali na. depuis trois semaines yoo xam ne bu ñu demee àggale ko am na nag ñu fay jaamit di ko mbubboo waaye waa salim Salimto mi yore liggéey boobu depuis safar Salimto ca safar ñooñu bañ koy tàmbali àndoon ak man ñu dem ci terrain bi de façon symbolique dem Daaru Salaam dem cité ouvrière dem ci mag bi jóge fa dem Kawsara foofu nga xam ne 1000 mètres linéaires lañ fa war a def loola ñun ñi xam nañ ko parce que ñoo ko liggéey loola Macky Sall moo ci jàppale kon ngeen xam ne ci yeneen yoo xam ne dañ ko développé ci biir campagne bi ñun lëkkaloo bi ñu lëkkaloo ak Macky Sall pour dëkk bi nga xam ne njariñu dëkk bi moo taxoon ñu lëkkaloo ak moom njariñ booba feeñ na moom naxuñu kon su ñu demee ba jëmmi jamono ah mu am ñoo xam ne pour seen intérêt bopp dañoo dem jébbalu ci makisal Sall ñooñu laa wax ni ñu nag ñoom dañoo waroo ndax bokkuñu dañoo jóg lëkkaloo ak makisal mi nga xam ne ba muy toog daf ñu woo ba muy toog daa woote woo Idrissa mu dem dugali nitam ba mu jàpp ne 2017 xay na dootul soreeti te war na waajal mu gàddaay dem ña mu àndaloon bañ ah ñun te suñ bopp ba mu ñuy woo moom président Macky le 6 mars entre les deux tours dafa ni Talla Sylla sama xarit sama rakk la ku xerali la dañoo ñu ànd liggéey est-ce dem yow nguur guy du waaj toog bees pull nit ñi bëgg a riir jëm ca ñu woo la personnellement ne nga bañ c'est parce que dafa am ne man du ma def lu ma gëmul man ma wax ko ci jamono boobu moom président parce que sama xarit la nag loolu dëgg la sama mag la tamit loolu dëgg la mu jox ma cër loolu loolu dëgg la ma ne ko je vous invite à vous méfier des politiciens carriéristes et autres affairistes véreux ils son prompts aujourd'hui à vous passer la bague au doigt en attendant la corde au cou ñooñu doon wax yàggul dara ñu jóg ne bague boobu ñu ko doon jox muy bague fiançailles ñu xëy benn jour bëgg koo rawal buum pour pendul ko ma taxaw nag wax ak moom mu ne ma moom moom Macky Sall bi may doog ko jóge États-Unis bàyyi fa Ablaye Samb mi mu ne ma lu ne yaa ngi ma koy wax waaw ma ne ko lu ma la wax rek loolu laa gëm mu ne ma neen nga ma yoon wii ma jël du dem léegi nag li ma bëgg mooy nga ñëw wax ma ban yoon mooy dem ma nangu di ko conseiller ndax kilifa bu jógee waroon ne ah yow mi may sànni xeer day danga may sori waaye comme moom xam na ma xam ne lu ma wax loolu laa gëm mën na cee bañ a d'accord ak man na mu woo ma ne ma léegi comme ne nga yoon wi ma jël du dem ban yoon mooy dem loolu mooy kon xelal ma ci yow li nga xalaat cër la ma may ma nangu woon ko avant même ñu di ko xaatim waxe woon ne feek mi ngi may may cëru ma di ko wax li ma xalaat ci Sénégal kon kenn dootuma dégg ci rajo wala ci télé ma di ko wax quoi que ce soit ndax nag kilifa bu la mayee ci boppam nga mën koo wax sa xalaat ci pet ngay gis mu ciy jëfee lu bëri amatuloo droit dem ci rajo wala ci télé di ko wax quoi que ce soit démarche boobu dafa bokkul dara ak koo xam ne bu fa jógee weccet place position moo ko fa yóbbu kon ñooñu bu ñu kon ngeen xam ne yéen jàmbaar yi toog muy góor ñi muy jigéen ñi muy musulman yi di chrétien yi di ñi ñuy tuddee ñi nga xam ne dañu nekk ñu amee laago ak ñi nga xam ne jàpp nañ ñi nga xam ne góor lañu ak jigéen lañu ñi nga xam ne mag lañu ak ndaw ñooñu boo leen dajalee ñooy waa mooy ñun mooy yéen mooy ñi nekk ci seen i biir kër li leen yitteel mooy suñu amee mbalit fu ñu koy yóbbu li leen yitteel mooy suñu doxee seen i soxla ba ñëw ñu am mbedd ñu leer ñu mën a jaar ñooña di waa ñun ñooñu la ñuy waxal bi ñu jëm mën nañ cee jëm ba mu jeex te duñu jàpp sax ne beneen liste am na campagne bi ñu jëm su ngeen gisee ma am ñu ma fi tudd ñi ma fi tudd dama leen tudd ngir lan mooy ndax dañoo bëggoon a privé bu seen pexe juboon dañoo bëggoon a privé waa Thiès ci ñun ñii ñu mën a am liste mën a jàkkaarloo ko mais ki nga xam ne daa wóolu boppam pourquoi muy bañ keneen am liste ki nga xam ne daa wolu boppam pourquoi jógul dem defar liste tudde ko réew mi ki nga xam ne moo daan taxaw li am li muy wax ci fas wi bu demee tey bay làqatu ci fas wi waaye na xam ne fas wi danañ ko jagan danañ ko ngalaat fii ni Thiès waaw xoolal li tax ñu koy jagan fii ci Thiès di ko fi ngalaat bañ ci ville bi ak commune yi je parle pas du département le département Siré Dia moo fa nekk te yàlla na am ndam waaw loolu laa ko yéene sunu frère la sunu xarit ñun ñu ngi ci ville bi ak commune yi mais fii boo xam ne bu yéegee ci kaw fas wi bu yéegee ci kaw fas wi tànk bi am na ay pont yu ci nekk dana jam fas wi ba fas wi ku ko jam nag mu maam te bu maamee mën a yàq te fas dañ koy soxla ginnaaw élection yi moo waral ñu ni fas wi nañ ko jatan ba pare ngalaat ko ba buñ ko jamee sax du mën a def wala loo xam ne loolu mooy mën a permettre fii lu jëm nit ñi xam ne même fas wi même fas wi ñu ñii di waa Thiès dañu war a bàyyi xel bu baax ndax wolof dafay wax ne bëgg a waat su la taxee maf ñaandu siñeer loo liggéey ci di ko jëlee tey te ñii bëgg ngeen war leen ñor si ñeen lañu bu leen leen max ñaanu benn laytaay yi nga xam ne nag danañ ko jaarale ci seen diggante ak ñoom mooy ñun ñii waa Thiès kon ngeen xam ne ah, am na lu leen yéenee ci wàllu kàddu lu bëri ñii ma àndal xam nañ ne am na fu ma waroon a teew rate naa ci lu bëri xëy na mais mënu moon demee noonu ndax su fekkee ne tey dañu jóg taxawal coalition nga jóg soxna maam jaara Bousso Fall nekk ci tête de liste majoritaire ci est nga am suñu rak suñu jarbaat Lamine Ngom nekk tête de liste ci est nga am soxna Issa Gueye mu nekk tête de liste fële ci nord nga am Pape amadu Sall tête de liste fële ci nord nga am Moustapha Diaw mu nekk tête de liste ci ouest nga am ah El Hadji Ousseynou Diouf tête de liste majoritaire ci ouest te ñooñu te ñooñu laa wax tey suñu àndee gañe ñëpp bennoo lañu bokk te kenn bokkut sa morom parti liste bële ñoom seen yéene mooy fal ñeenti maire yoo xam ne ñëpp réew mi lañ ko ana kon nga xam ne bennoo newul foofu daf ko tudd dañuy wax nag ni lu waay di wuyoo da koy nuru ma dolli ci ne bu mu yem ci nuru ko da koo war a doon bennoo bi ñun ñi ñoo ko doon ñoom nag ñoo ko tudd nañu jël tur wi te def ñu jël li nga xam ne mooy yàqin bi te am ndam ndax li am solo mooy loola kon mbokk yi ci daraje yi kilifa yu tedd yi fi teew ak yi fi yable ci daraje yi nit ñu baax ñi ne ci Sénégal ak yéene bi ñu am nañu àndandoo joxante loxo ngir lii nu jëm dafa am solo lii nu jëm ni mu amee solo mooy lan mooy su ñoom seen pexe bu jubee la muy jur ëllëg jural ko waa Thiès jural ko keneen mooy wax dëgg amul njariñ bu boobaa la muy jur mooy jub amul njariñ boobaa la muy jur mooy liggéey amul njariñ boobaa la muy moom mooy def lu baax amul njariñ te loolu bu amee musiba la ci Thiès musiba la ci senegal loolu moo waral ma wax leen li ma leen wax di sàkku ci yéen nag ñu ànd ensemble